amul jom lu góorgóorlu damaa wëq a wëq a wëq ah yéen bëri ngeen waaw waaw waaw man damaa man daal man jaaxale yi jaaxal nañu seex dama yokk ba sonn jàngil jàngil jàngil jàngil mu laaj nga jàngil man. Ah. man de damay wax ko sonn man daal Cheikh man xaw fu mu rek Cheikh man daal waaye gisoo leen Cheikh sama fenn. Fapal Fapal. waaw. rek. nit Cheikh man daal man man waaye Cheikh la yore yow. def nga foofu dama foofu dama foofu. Cheikh tuuma tuuma laa wax yow lii la ndax la moom nee na xarafu. waaye sa baay nga ne ko xarafu. parce que yàlla moom moo la ne xarafu. yow man bu ma xarafu dinaa la indi fii sa baay nga ne ko xarafu Seex Seex yow sa baay nga ne ko xarafu. bu dul woon nit ñi fi nekk dinaa la ko génneel ko xool ah ma génneel ko kaay yéen yéen a ko fi nga xool yéen yéen a ko xool ndax sa baay xarafu wala xarafu. moom moom nga wax dong moom moom. amal yar Seex dama la wax ba sonn Seex demal nga jàngi. li sax dina la seex dama nga jam, amel jëm doon na nama man mi di sa baay dama sonn bu jënd naa saaku ceeb ba sonn seex yére ma sa baay waaw seex sa yow di doo jënd ceeb jënd ma ma ñaar bukan dari sini, bukan dari ibu, kata anda bayar pilih. Mom, mom dah tahu. Wah, wah. waaw léegi yow bu ma leen a fii nii ne seet doon nga jàngi nga teg doon fii nii xanaa ma ma di mii ni mayee fii kon barki dem mu njëkk Babacar waaw gan laa la ma jox waaw maa la ko ko gën a weex dégg nga léegi damaa bëgg a am jom dimbale sa baay may sol ci gees ñeer yi dinaw ci xaamay bàyyi bi ma nekk dang dangi naa bay bëgg a dee Cheikh lu ma yor sa yaay law Mudah, mose waaw mose moom moom kii moom ma xool xool ma xool moom neex ko rek après après ba ci yàgg rek mu daal ne ma neex soow eh. après après mu daal ne ko waaw eh. léegi après mu ne ma béysi yow ma la béysi nga ne ko fii avec moi waaw ak yaa avec moi ah du ma sa daay man fii nii ne xanaa ma quatrième ici à la école maintenant. boobu laa koy loolu nga ne ko sama papa sama yaay néew foofu dafa génn ma weesu yow avec matelas nga ne ko matelas néew fa de waaw. moom moom dama dàq nga xam dàq. waaw sori ici à la école. xanaa xamul da ngaa war doon président de la république. ah tekki dimbali sa baay. moom man dama posé question question question xaw ma ko. non man question sa sant gi naa tegu question. te Je boo ko waxee fan yii yëpp maa ngi wax ne ko toggal mu ne du doog question yow nga naa Je du question question dama ko lekk ba sonn nga ne ma question Cheikh. moom moom moom donc dana ma dana Je kii la premier président de la République Sénégal. monsieur président de la République Sénégal. waaw après ma toog. Sani Ndiaye Sani Ndiaye alaaj Ndiaye la Pape Je lan la woon président de la République Sani Ndiaye Pape Gueye président de la République la woon. gaa yi ko xeex rek waaye dem na ba dem na ba ñu ab ah, ba jiir ñu déposé ko mu mu déposé candidat benn dala am man na ko papa papa jaaxal na góorgóor la wut waaw léegi yow kon kay yow damaa bëgg nga doon président tekki nag Cheikh Timbali sa baax na jabar jabar ah nag Cheikh nag moom fii moom yooyu fa gis ñii <laughs> xaaral xoolal la ah ah, ah grande dame yi. Ah, di di di di di ma tànn ko sa baax tànn ko sa baax tànn ko sa baax xoolal ah. ma ne sama eh, eh eh bul nag baal bul jooy ma xoolal la keneen kaay bul jooy kaay kaay xoolal nag bàyyil jooy ah xoolal fii xale yi nan miin nan ni dañoo diwoo diw li nga xamoon ko kan kan kii ah kon kii waaw kii man papa magal moom kon ñu magal man man man magal Siap kan mau mau kai kai mau kai kai kai kai. Siap siap kai tok sama. Hah? Kai dia dua minggu kok eh kok dua minggu. Kalau mau mau kai. Siap kalau lele tapi nang minggu. cái man ya mesti tak bisa siap ngeh kalau minggu dikata. Ang man di mana? Hah? Kai kai kai kai kai kai mau. say nijaay doon mongol say tante doon mongol say umpaañ doon mongol Pape Gueye mii di sama doomu day léegi moo xam mongol bu koy tuddee ko. ah kii kii kii kii kii mariage kii kii mariage mongol la. non mongol la. Eh, dafa bëgg a takk dafa mongol mariage ko. li nga wax ngeen ne kii mariage ak ñebe yàlla te dañuy dóore. waaye ñebe yàlla dama ñibbi ñibbi. ah. nee ba ñibbi bu ñibbi kaay. man man dafa bàyyi jàng. déedéet déedéet ndax léegi nañ de man fii nii damaa sonn parce que da ngaa lu la nga ne góob waaw. Ah. jaar si yëpp jeexal. loolu la. xool nga at muy génn muy génn ne ñaati la nii ñu ne xaw ma ne ma muus ma koy yokk di ko yokk não fazia